Ousmane Sonko li mu def na leeral xaas bi ñu koy jiiñ na leeral ba nekkee fi mu la piraat na ko leeral ñu fa doon jub moo ne ñun xam nañ ko na leer tamit fu mu féete xaña jullit la loolu leer na jullit la du jullit <laughs> leeruñu. ah moom xam ñëw daa nu bëgg daa nu bëgg waaye ah, Sonko moom. ñun ku ne xam nañ ko moom Macky Sall gëmal ko ñeneen loolu dañ koy a gëmal rek comme moom Macky Sall bu ñëwee su moom bu ñëwee su jóot nuyoo raam ah a gëmal Sonko daa man li ma ko li ma ko mën a teg mooy yàlla ma yàlla baal naaf yàq